dem internet lettre bi man ma bind lettre bi ñuy Qui ci turu commission relations extérieures les relations extérieures non président de commission relations extérieures pratique bo xamantene bi. fam tambulé depuis 2009 biñ créé li nga xam ne commission relations extérieures muy benn ci commission yi ne ci comité d'organisation bi man ma en commission relations et religieuses depuis 2009 ci ay jokkoo lañu xamal né amna ay appui logistique yo xamante bi wa présidence man nañ ko défal ma jël euh, sama khalima bima ci ak kilifa yi nga le président du comité du comité il y a une commission comme commission communication ak y di une correspondance il y a ak non la commission relations extérieures defee ay correspondance yoo a demande appui logistique nga présidence dañu a jox euh, chambre di ñu jox ci parc automobile bi juróom benni oto léeg-léeg sax am na at moo xamante ne bii ñaari at yoo xamante bii seeni oto dafa maanaam nekkoon en panne ñu luyee ay oto jox ñu loolu comité d'organisation bi xam na ne am xam na ne dañuy am ay gan te bu ñu amee ay gan di dugal ci oto di leen andi di leen jaarale ci hôtel ci hôtel ba kon man loolu su ma ci amutoon ay sañ-sañ ci liñ ma ci topp toppatooloo di ma ko jiitaloo pour ma seet na mu baaxee di ci diisoo ak ki nga xamante bi mooy kilifa gi ko yor la kon du ma ko def mbooleem ñi nga xamante ne bii loolu lañ daan def def nañ ko ren demande dégg nga appui sécuritaire gendarmerie ak ministère de l'intérieur demande aux autorités donc de l'aéroport de demande tam boo ministère des affaires la commencé l'état de transmission bi nga xamantene pour inviter le corps diplomatique lepp ñu corps ko chaque année bu fekkente ne bi xëy na euh, donc dafa am yeneen autorités yu bees yoo xamante ne am na nu ñu bëgg a doxale ba tax maanaam coow li am man li may njëkk a déploré di ko dénoncé mooy man duma jël mukk benn lettre confidentielle wala officielle dégg nga di ko publier di ko publier ci internet man loolu laa njëkk a journaliste ya ma njëkk laaj dama leen ne amu lu may wax ci loolu no comment li ci indi nag sama tour mooy ki tontu man maa bind ci turu président de commission relations extérieures moom mu tontu def sama tour, ne Cheikhouna Mbacké président du comité d'organisation man musuma wax ne président de commission de comité d'organisation laa man donc li ma doon def dama ko def ci turu président de commission relations extérieures te kilifa yi nga xamante bi ñoom war nañ koo gis buñ ma ko laajee moo won leen lettre bi ma leen bind ak sama signature ak sama tur ak turu commune ak ci antenne commission relation extérieure te loolu du commission relation extérieure kese yeneen commission yëpp ku nekk yaa ngay liggéey ca sa domaine dégg nga ci sa entête moo xam dégg nga ci coordination bi la moo xam yeneen commission yi la donc nag boo gisee ma def lii nag damaa dégg ay wax yu tàmbalee génn mel ne comme man sama tur lañ ci tudd damaa def leen lu mu war def euh, su ma nag euh, euh, buñ ma laajoon nag ma leeral mais comme damaa gis ab message bu mel ne man man la ñuy desawuyee mel ne man damaa def lu mu war def moo tax damay leeral lii nag yem fa nag bañ nag gëstu ba lu ñu war a leeral donc ñu leeral man defuma lenn lu mu war def dégg nga defuma lenn tam lu nga xamul ne maa ngi koy def waaw kon nag man fas naa yéene eh, malheureusement su ma ko déggoon eh, buñ ma laajoon avant ñuy wax dinaa leeral mais comme li ma dégg ci presse bi seetaan ko ci internet bi yem ceeg ñëpp ñu ne le comité d'organisation bi musta demandé dara kon lay xam ne

ñu def ko am ko ci amoon wu yiw woo xamante ne bii maanaam ngeen ñàkk benn wu ci ñi ma njëkk a laaj euh, dañ ma laaj ne ma mbaa loolu di leen andil ay jafe-jafe may leen ban jafe-jafe dama leen man du ma ci wax kenn déggul ma def ci benn déclaration si yi yi tudd sama tur lu dul ne leen du ma wax ci loolu dégg nga ñu ne ma ndax loolu kon dina indi rëq-rëq may leen déedéet ay yombal la ñu andil ndax taalibe Sëñ Tuubaa yi ko dégg dégg nga ñoom lañ soxla woon. jox nañu ba jox ñu lu ëpp lañ daan soxla te itam ñun ni ma ko ko ko waxee ñoo ëpp ñun bu doonoon ñun bu ñu xañee dégg nga duñ ko ma mën a am walla duñ mën a réagir li ñu def te ku ne am na say doxalin ñi ngi sant ndax defe naa ne li gouvernement bi nguur gi séq ak sëñ bi séq ko ak comité d'organisation bi ak lay seen warugar ñu di ko def taxaw di ko taxaw defe naa ne moo ëpp li nga xamante ne bii ñun ñiñ ko wax bi ñu ko waxee comprendre nañ ko nangu nañ ko dégg nga te teguñ ci baat lu dul jéem a seet nuñ fexe ba liñ bëggoon dégg nga ñu am ko ci armée gën a rafet xarabuñ kenn dégg nga tey defe naa ne laaj laajuñ lenn lu ñu war laaj wala ñu def lenn lu ñu war a def man nag du ma benn lettre waaye lettre bi ñu tontu maa ngi moom ku ko soxla te war koo gis. man na la ko won ba xam ndax man dama wax ci turu kenn kudul sama turu ci sen sen yañ ma jox ma ngi jéggul ñepp nak li nak fi ma ko déggee ko tontoo internet la ko déggé waaw buñ ma laajoon do ko wax ma ma ci liñ ma laaj waye comme dama jékki-jékki gis ko ñu wax ko ci internet ne comité d'organisation bi mom mu se demander ken dara te man ma bokk ci comité d'organisation bi yor ju commission dégg nga ñu jox ma ci sañ ma def ko fukki at ak kon loolu laay tontu lii nag yem fa lépp lu ma nag lu ñu ma war a laaj ña ma ko war a seqal dinaa ko xam ak moom kon maa ngi santaat yàlla di eh, ñaanal Cheikh mu Mountakha yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi te wér asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.